mbokk alhamdulillah alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ngi dellu sant suñu boroom subhanahu wa taala ci wërsëgal gim ñu wërsëgalaat ñu daje ci ab néegam fas yéene jël fas yéene jël benn bind ci suñu téere bi ñuy topp muy risaala bi ibnu abi zayd alxayrawaani ñi ngi yegsi woon ak yéen ci fanweerilu bunt bi ak ñeent ci baabun fil buyu wa ma shaakala al buyu ñu jëlum ci ay bind ba bu doon te ne ni da nga ñuy topp ñi ngi nekk ci fi muy waxe ni wa kullu bayin fasidin fa damaanuhu min al baa'i soo yoree traduction yu yu xonq yi yaa ngi ci page quatre-vingt bi mi ngi noonu ci quatrième ligne bi su dee da nga yor samaru daani bi yaa ngi page cinq cent cinq cent cinq cent cinq ci deuxième ligne bi wa kullu bayin fasid fa damaanuhu min al baa'i tey jii mooy le vingt-six ca la nga xam ni mooy zulhijja di weeru aj makka tombeeg li di le seize ci weeru août ci deux mille vingt su dee ni mbokk yi bokk nañu gis fi ñu yem suñu bind bu njëkk day wax ni wa kullu bayin fasidin bépp njaay moo xam ne njaay mu yàqu yàqu la ci sharia fa damaanuhu min al baa'i garanti loolu dafay nekk ca ka nga xam ne moo ko jaay fa in qabadahu al mubtaa'u su dee jël na ko nag ka nga xam ne moo ko jënd fa damaanuhu min al mubtaa min yawmi qabdihi kon garantie ba day nekk ca ka ko jënd ca la nga xam ne mooy bis ba mu ko jëli fa in xaala suuquhu heure boo xamee ne soppeeku na marchéem ay njëgg aw taxayyara fi badanihi wala mu soppeeku ci jëmmam ja bu doon ab jaam la fa alayhi qiimatuhu yawma qabdihi su boobaa day joxe valeuram rek bis ba mu koy jël wala yarudduhu waaye du ko delloo wa in kaana mimma yuusan su bokkee nag ca la ñuy natt ca la ñuy peser aw yuukal mi ngi noonu wala loo xam ne dañ koy natt fal yarudda mislahu na delloo lu mel noonu wala yufiitu ribaa xawaalatul aswaaq du nekk di am jeexital ca la nga xam ne mooy teere ya lii di wëlbatikook marché yi bokk kon fii day wax ci ki nga xam ne dafa jaay benn mbir ca mbir boobu amul droit ci jaay ko bokk na ci loolu ki nga xam ne dafay jaay ci waxtu wu ñu noddalee juma suñu noddalee juma suñu borom day araamal am njaay bokkoon na ci it bu dee wàllu lekk la ki nga xam ne day jaay loo xam ni jëlewu ko fa mu ko jëndee woon mu ne lii lépp bu dee am na lépp lu aju ca njaay moomee kaka jaay mooy garanteem ndax génnagul ci moomeelam génnagul ci loxoom waa ja jënd njaay moo xam ne nag jaaduwul ci lu mel ne kaa yooyu ñu leen wax su dee ne jël na ko gannaaw ba marchandise ma ñu xamal ko ne lii nga jël kat wuloo ko woon a jël su dee ne prix ba changé wul ci marché bi da koy delloo rek bu dee prix ba dafa changé nag su boobaa du ko delloo day delloo valeur am bis ba nga xamee ni nii moom la ko jëloon ci moom mu ne lii day nekk ci loo xam ne lu ñuy peser la wala di ko natt la amma bu dee ay téere même bu dee ne moom jël na la nga xamee ni nii mooy moomee lem nga ci ay kayit nekkul loo xam ni dañ koy delloowaat ndax amul jeexital buy am ci loolu ala kulli xaal mbokk yi ay cas exceptionnel la te mooy waa ji moom moom moom li muy jaay waaye nag fa mu ko jaayee waru ko fa woon a jaay su boobaa ki xam loolu dafa war a delloo njaay ma lu dul ni mbir mi soppee ko ci say loxo walla prix ba changé ci marché bi loolu lay wax ci wàllu googee suñ doon jël beneen bind wala yajuuzu salafun yajurru manfaa du dagan benn leble boo xam ni kay leble day am intérêt bu mu cay am wala yajuuzu bay'un wa salaf du daggan lii di njaay mu ànd ak leble wa kazalika ma qaarana salaf naka noonu lépp luy lënkoog ay leble min ijaaratin ci loo xam ne dañ koy fay ci ci ay salaire aw kiraa wala ci ay location wa salafu jaiz lii di leble day lu dagan la fi kulli shay'in ci lum mën a doon illa fil jawaari xanaa lu dul leble ay jaam yu jigéen wa kazalika an turaabul fidda ak la nga xame ne nii moom mooy suuf ba ñuy génnee xaalis ba mi ngi noonu mbokk kon fii day wax ni bor day ab julit wurte leble benn bor boo xam ni kam kay lebal am na intérêt bu muy séentu ci moom gannaaw bor ba mu koy fay masalan ab maçon ñëwoon na nga lebal ko cent mille cent mille la lay fay waaye nag nga ne ko dag ma ci tabaxaale sama miir bii wala koo naan danaa la lebal temps lam la lebal exactement la lay fay waaye nag bagage tel dag ma ko yóbbul tel bépp njëriñ boo xam ne day tege ca kaw bor bañ la war a fay loolee du daggan ci lislaam du daggan ci yow nga koy jël du daggan ca ka ngay lebal muy nangu loolu nga xam ngeen ci wàllu riba islaam ni mu teree kay jël riba noonu la teree kay joxe riba mu ne du daggan lii di njaay mu ànd ak leble njaay mu ànd ak leble boo delloo ci somrudaani bi dalay expliqué ne mooy waajoo xam ne dafa jëloon ñaari mbir jaay ko benn waay non lebal ko benn waay bala fa jógee mu jëndaat benn bi mi ngi noonu mu yoral ko boru ñaar te fekk jëndaat ne benn bi doonte ne ni am na ñu koy firi bay un wa salaf mooy waa ji nga xam ne nii dafay jël di gaga lu ñuy toll di gagale te ñu am ci marché yi mooy man day mën naa laa lebal tel waaye nag da ngay jënd tel loole nga xam ne kon waa ji day boole bor bi ak njaay mi loolee kenn du ko boole ci sharia loolu mu it lay wax ci location ya ak lu mën a doon mooy waa ji ñëw ne dama bëgg nga luye ma sa kër masalan dana ko d'accord waaye nag il faut nga jënd nangam ma doog laa mën a luye nangam yooyu yépp da ngay gis kenn du lënkale bor ak lenn loo xam ni dafa bokkul ak bor ba moo tax mu ne bor day dagan na nag ñu jëflante ko ci lu mu mën a doon xaalis la lekk la lu mu mën a doon ba mu des la nga xamee ni nii mooy ay ay ay ay jànq yu ñuy leble loolu moom kenn du ko def waaye bu dul loolu lu nekk mënees na koo leble naka noonu it suuf ba nga xam ne dañ cey génne xaalis ndax loolu kenn du xam exactement xaalis ba naka la toll te xatta xeer yu jaxasoog ay xaalis wala or yonent bi sallallahu alayhi wasallam da doon wax ni buñ ko jaay lu dul ñu teqe la ko ba lu nekk ñu xam nu mu toll kon loolu lay wax ci wàllu googe booy jël beneen bind mu ne wala tajuuzu alwadiatu min addayni ala tajiilihi du dagan mukk ñuy wàññi bor ba ngiree ñu gaaw koo fay wala taxiiru bihi ala ziyaadati fiihi du dagan nit ñu yokk dela ba ca yokk ga ñu yokk ca bor ba wala tajiilu aradin ala ziyaadatin fiihi du dagan nit waa ji teele indi marchandise ba mu jaayoon mi ngi noonu ngiree dolli gam cay dolli dara ida kaana min bayin su dee ne kay njaay la woon wala ba'sa bi ta'jilihi bi ta'jilihi zalika min qardin su dee nag waaje da ko leboon mënees na koo teele indil marchandise ma ida kaanat ziyadatu fi sifa su dee dolli ga day nekk dolleeku te melokaan ba mbokk kon fii day wax ni du dagan masalan waa ji yoraloon la bor ngeen siñeenti fin du mois laa lay fay bor bi cent mille la ñu dem ba la quinze nga jël ko ah sawaay man damaa soxla xaalis ndax yoroo ko ba quatre vingt mille nga jox ma ma teggil la bo borob cent mille bi mu jox la quatre-vingt mille ngeen kitoo islam du nangu loolu wala boog waa ji yor bor bi fin du mois jot na mu naa sa waay man kat jëkkuma pour fay la léegi da nga koy def cent vingt mille ba beneen fin du mois ma doog laa fay ñaari melokaan yooyu yépp islam du nangu loolu mu indi it beneen cas waa ji daa jënd marchandise ngeen su ñente ni danaa ko jël si masalan fin du mois lay lay mën a jël marchandise bi yow nga ñëw ci diggante bi ne ko kaay ma yokkal la li nga jënd ca nga jël sa marchandise loolee islam du nangu loolu imma ñu bàyyi ko ba dele ba wala imma mu jël ko mais yokk ko islam du ko nangu loolu nag mu ne bu dee ci njaay la amma bu doon waa ji daal leb ñëw leb la marchandise léegi yow nga bëgg ko koo jox mu ne loolu dana mën a nekk waaye nag du doon lu ñuy yokk yokk ga daal buy am day nekk ca melokaani ya mais du nekk ci lim ba masalan waa ji ñëwoon na lépp la fukki xar xar yooyu mu ne nag fin du mois laa koy mën a jël nga dem ba ci diggante bi xar yi sonal la nga ñor ko sa waay kaa jël sa xar yi mi ngi noonu seet ca ñaari xar yoo xam ne yu ndaw la woon nga remplacer ko yu mag mu ne bu dee ci leba dana dagan mais bu dee ci jaaya nekkul loo xam ne nii du doon du dagan loolu lay wax ci wàllu googee buñ ci jëlee beneen bind avant ñuy dugg ci question yi mu ne wa man radda fil qard koo xam ne dafa delloo ci bor aksara adadan fi majlisil qada lu ëpp ca lañ ko lebaloon ci lim ca fa ñuy attewoo mooy place ba muy faye bor ba faqad uxtilifa fi zalik uute na ci loolu borom xam-xam ya ida lam yakun fihi chartun su dee ne ba ñuy fas bor ba chartawuñ ko woon wala waa wayun waa ji jugu ko woon it ne ko danaa la tegal wala aada nekkul it aaday dëkk ba nekkul lépp bor booy fay dañ cee teg dara fa ajaazahu ashhab wa karihahu ibnu alqasim walam yujizu yujizu mu ne buñ demoo ci borom xam-xamu maliki yi am na ci ku ñuy wax ashhab nee na loolu lu dagan la am na ibnu qasim nag moom nee na loolu lu xaram la mbokk kon lii lan lay demee mooy waa ji da nga koo lebaloon bi nga koy lebal bor yow cent mille francs nga ko lebaloon waxtu bi mu lay fay si mu yëkkati cent dix mille jox la ne la dix mille yi day moom maa la ko may wala da nga koo lebaloon masalan ay xar xar yooyee ba mu lay fay mu fay la xar yoo xam ne moo gën fuuf yaa ngi ko lebaloon loolu day wax ne bu dee ne ba ñuy fas bor bi chartoo wuñ ko woon muy benn waa ji it digu ko woon ne lebal ma rek su ma lay fay danaa am lu ma la defal digu ko woon nekkul woon it aaday dëkk ba ca ne ku lebal nit dañ cay teg dara mu ne yii yépp bu dee amu ca waa ji daal moo gis rek yow dimbali nga ko mu daal di ñëw yëkkati dara teg jox la ko loolee borom xam-xam yi dañ ca am ixtilaaf am ñu ne dagan na am ñu ne loolee nekk na lu xaraam li ngi noonu doonte ne ni bokkoon na ca la ca gën a digg doomu mooy ñi nga xam ne dañoo wax bu dee ci melokaan bi la dana dagan mu bañ a doon ci lim bi masalan ci dars yi passé déggoon ngeen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam comme leboon ay giléem bi giléem yi zakkaat yi ñëwee mu ne bilaal wala kenn ci saxaaba yi damal fay ko giléem yi ñu ko jëlaloon mu ne ko ah yow yàlla yónni fii day ay giléem yu mag rek moo fa des yonent bi ne jël leen giléem yooyu ngeen fay ko ci gën ci nit ñi mooy ko gën na muy fayee kon bu doon tene ne dalaa lebaloon masalan ceeb cent kilo ceeb boo xam ne ceebu ordinaire la nga ñëw fay ko cent kilo boo xam ne nii siyaam la wala kaza wa kaza loolee bu dee ci melokaan bi yonent bi def na lu mel noonu am maana bu dee ci lim bi loolee moom li gën jullit bañ koy def ki la lebal fay ko lam la lebal soo koy defal teraanga nga bàyyi ba beneen jamono waaye bañ a lënkale teraanga bi nga koy defal ak bor bi nga xam ne dañ ko koy fay loolee kon mbokk da ngay gis ne bokk na ci la ci gën a digg dóomu ala kulli xaal kon bala ñoo sori li aju ci wàllu jëflante ci bor yi su doon am na kenn comme ci am naam waaleykum salaam naam waaw lu mel noonu dañ ko jàng ci kanam te mooy ñaari prix yu ñuy wax ci benn njaay loolee la nga xamee ni nii moo ca sax insha allah mooy bu dee leeral nañ ko bala ñu fay jóge dara néew ci masalan ñu leeral ni yow kat xale bi da nga koy fayal année bi yépp wala da nga koy fayal par mois ñu ne la bu dee année bi yépp day nekk quatre-vingt-dix mille bu dee par mois day nekk cent vingt mille ngay tànn ne kon man damay fay année bi yépp su boobaa loolee dana dagal ñu jëflante ci lu mel noonu mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam waa ji nga xam ne deful laa yoral xaalis mi ngi beneen place mu ne mën naa la ko fay waaye frais yi yaa koy féetewoo moom mi la leb xaalis moom moo war a féetewoo ay frais ndax dafa la lim la leb lu tol noonu la la war a delloo moom moo waroon a paas ñëw fay la ko orange money bi ak yombal la guñ ko yombalal kon moom la nga xam ne moom la la leb lu mel noonu la la war a delloo à condition que ni yow ba nga koy lebal da nga ko koo yónnee woon par orange money cent mille nga ko yónnee woon sans frais am na droit yónni la cent mille sans frais mais bu dee ne xaalis liquide la boo tegoon ci loxoom nga xam ne yow mënoo ko récupérer waat en liquide lu dul dafa ànd ak frais frais yooyu moom ci boppam moo ko war a gàddu mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah naam waaleykum salaam dama déposé woon 500000 ci banque bi ne man duma ko soxla lu dul 2 mois ci diggante bi ma soxla ko mu ñëw banque bi ne daf ma koy jaayaat ala kulli xaal loolu moom ay mbir la yoo xam ne nekk na lu ma bett xawma li ma xam daal mooy banque ak commerçant ku mën a doon nit ki bu ñëwee dénk la xaalis xaalis boobee heure bu ñëwee soxla ko da nga koo war a delloo ab xaalisam su dee de nag da ngeen siñante woon ne man fii ak deux mois laa koy jël su boobaa moom am na droit ne la ah sëñ bi kat yaa ne ma woon xaalis bi doo ko jël lu dul deux mois kon xaaral ba deux mois yi jot waaye amul droit ne la ah comme da nga ne deux mois la léegi damay wàññi li ma lay jox loolu lañ jàngi nii léegi te mooy kenn amul droit di wàññi bor ngir dañ koo teel a joxe wala di ko yokk ngir dañ koo retardé loolu banque bay def kon nekkul lu dagal am maa yow muy jëflanteeg banque bi rek te xam ne amoo pexe boo koy defit da ngay xam ne yaa ngi koy def ci lu am lu ñàkk pexe waaye banque ba moom la muy def daganul mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaleykum salaam wa rahmatullah ala kulli xaal la yuusu bay wa wa salaf mooy doo lënkale bor ak njaay doo lënkale bor ak njaay moo di ne ni wa is misaal biñ ci joxe comme ma la ko waxee ci yoom yor samru daani bi dane masalan waa ji ñëw ne ñaari jël leb ci yow lebal ma ñaari portable nga lebal ko ñaari portable mu nekk cinquante mille avant mu fay jóge nga ne ko jaay ma benn bi mu jaay la benn portable bi ci cinquante mille wala ci soixante mille non ci cinquante mille ndax bu ëppee moom day dugg ci beneen cadre waaye même bu la ko jaayaatee cinquante mille yoroon na la boru cent mille ba pare moom yoroon na la boru cent mille ba pare wëlbatikuwaat jox la benn portable yow nga jox ko cinquante mille moom mu yóbbu cinquante mille ak portable ca cent mille franc ba ma nga fa loolu lañ ne kon ci même opération bi njaay am na ci lépp am na ci ci même article bi loolu la nga xam ne mooy misaal yam ca joxe donte ne boo di mën ci yeneen borom xam-xam ñoom dañ koy lañ koy tuddee mooy danaa la lebal de waaye bala ma laa lebal da ngay jënd lii ma doog laa lebal su ko defee nga xam ne waa ji foo mu ñu imposé ko mu jënd la ko tax muy jënd mooy bor bi bu dul woon bor bi du ko jënd loolu moom la ñuy tuddee bay un wa saraf ci yenn firi ni borom xam-xam yi wallahu subhanahu wa taala alam waaw ala kulli xaal kon ñu jël beneen bind mu ne wa man alayhi dananiir aw darahim koo xam ne dafa war ci moom ay dinaar yum war a fay wala dërëm yum war a fay dinaar mooy luñ jële ci or dërëm mooy luñ jële ci xaalis min bayin aw qardin ci loo xam ne njaay la wala bor mu ajjalin ci loo xame ne ni dañ koo yéexe fa lahu an yuajjilahu moom bu ko neexee gaawe ko qabla ajalihi balaa dig ba di ñëw wa kazalika naka noonu lahu an yuajjila al uruda bu ko neexee teel a joxe marchandise ma wa taama ak ñam wa min qardin ci bor la min bayin waaye nag du ko def ci am njaay mi ngi noonu mbokk kon kii day wax ne waa ji dafa ñëwoon leb leb waa ji cent mille francs leb na ko ba fin du mois ci diggante bi mu am xéewal am na droit ñëw na waa ji ah am ma fay la sa cent mille francs fekk ne dig ba jotagul liñ jàngoon ci gannaaw mooy su dee borom bor ba moo ñëw ne ko indi quatre vingt mille ma teggil la cent mille yi loole moom dafay doon lu xaraam waaye bu dee ne waa ji ci boppam moom moo ñëw fee di maa la waroon a fay la quinze mu ñëw ah am naa xéewal sa cent mille a ngi nii su boobaa loolee moom da ngay gis ni dara nekkul ci loolee bu dee xaalis la mu ne nag bu dee ñam la bu dee ñam la wala matériel mu ne su boobaa du dagan ngay jël di ko indi te waxtu wayin waxante woon jotul bu dee ne ci am njaay la xanaa lu dul ci bor ki ñëwoon daal leb la masalan ay saaku ceeb ne ñu ne fin du mois lañ koy laa la koy jox am nga droit indil ko ko avant fin du mois bu dee bor la amma bu doon ci am njaay la te lu mel noonu dañ ko jàng ci kanam ñu koy tuddee assalam mu ne su boobaa fokk ñu bàyyi ba dat ba jot ñu dog koo dog koo livré suñuy jël beneen bind mu ne wala yajuuzu bay'un samari aw habbin lam yabdu salaahuhu du dagan nag ñuy jaay la nga xam ne mooy meññeent wala ay pepp mi ngi noonu fekk ne ñorogul mi ngi noonu baaxagul di ñor wa yajuuzu bay'uhu ida bada salaahu ba'dihi doonte ne dana dagan su commencé ah lii di wérug lenn la te mooy ñorug lenn la wa in naxlatun wa in naxlatun min naxiilin kasira doonte ne benn tàndarma la ca tàndarma yu bëree bëree bëri mbokk lii da ngay gis ne dafay wax ci wàllu jaay tool waa ji ñëw di jënd sa tool na doon loolee toolu dugub la toolu ñebbe la ay tàndarma la lum mën a doon bala koo nit kee mën a jaay day fekk ne tool baa ngi commencé ñor mu ne même bu doon benn ca garab ya ñor na ya ca des nekk ci gannaawam di ñor am nga droit jaay ko waaye bu dee benn commencé bu ci ñor su boobaa doo am droit jaay loolee loolu kon acte la boo xam ne day am ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci àll bi di jaayante ay tool bu ñuy jël bind bu ci topp mu ne wala yajuuzu bay'un ma fi l anhaari wal biraki min al xiitaan du dagan mukk ñu jaay la nekk ca dex ya wala ca biir déeg ya ca la nga xam ne nii moom mooy ay jën wala bay'ul janin kenn du jaay doom bu ñu ëmb fi batni ummihi ci biiru yaayam wala bayu ma fi butuni sa'iri alxayawanat du dagan ñu jaay li nekk ci biiru mboolemu baayuma yi wala bayu nitaaji ma tuntaju naaqa kenn amul droit di jaay ëmb la nga xamee ne nii ëmb na ko gileem gu jigéen ga mi ngi noonu wala bayu ma fi zuhuri l ibil du dagan ñu jaay la nekk ca gannaaw giléem ya amooy ndox may génne ca giléem yu góor ya wala bayu al ab wala bayu al abiq kenn du jaayit jaam boo xam ne daa rëcc daw wal bairi sharit ak giléem goo xam ne it daa mam mu rëcc daw wa nuhiya an bay il kilaab araamal nañ jaay ay xaj waxtulifa fi bay ma usina fi ittifaadihi minha doonte ne wuute nañu ci jaay la sharia daganal nañu jël ko ca moom wa amma man qatalahu fa alayhi qiimatu waaye képp ko rey fajub jaambur fokk nga joxe valeur am mi ngi noonu mbokk kon kii day wax ni ñu demoon tey ca dex ga ñu seen benn jën nga jaayanteeg waa ji gannaaw ba pour dem jàpp ko islam du nangu loolu islam du nangu loolu ñuy jën di jaay jën yoo xam ne dafa nekk ci géej wala ñu nekk ci ay dex gannaaw ba it ci loo xam ni éleveurs yi dañ ko def lu bari mooy ñu am xar moo xam ne ay laadun la wala leneen mu ëmb yow nga dem jaay ëmb bi loole mbokk du dagan ci lislaam fokk mu doom bi juddu ñu doog a waxaale niñ koy jaayi waaye ëmb kenn du ko jaay ci lislaam mi ngi noonu gis nañu it kenn du jaay la nga xam ne nii mooy giléem boo xam ne daa ëmb bal arab yi daanañ def lu gën a doy waar dañ daan gis ko am giléem yi valeur ba demoon tey ci ci arab yi am na ci façon giléem yoo xam ni ngi noonu boo fay bon cent millions sax bu ñu la ko jaay nga gis koo xam ni danaan man dama bëgg ñu jaay ma ëmb li giléem gi ëmb ay giléem gi ëmb ba diis nga ñëw waxaale ni léegi su amee doom bu jigéen su giléem googee ëmbee doom boobu maa ko moom ngeen siñente loolu nga xam ne mën na dem fii quatre ans sax islam du nangu forme yooyu yëpp donte ne arab yi dañ ko doon def am na loo xam ni tasaaroo na ci suñu éleveurs yu bëri mooy jaay la nga xam ne giléem gi da koy tëb wala fas wala am xar nga xam ne da ngay indi sa xar fay am na ñoo xam ne da ngay ay cent mille francs sax ngay fay ngir ñu tëbal la xar mi islam nanguwut loolu islam nanguwut loolu su ko defee la nga xam ne moom nga mën mooy waa ji su dee dafa indi da nga indi sa fasam sa xaram sa lu mën a doon mooy nga am teraanga boo xam ne defal nga ko ko ci dundu jur ga wala lu demee noonu am maa ngeen waxaale day tëb giléem gi wala xa wala fas yi wala xar mi islam du nangu ñu d'accord ci loolu mi ngi noonu islamit du d'accord la nga xam ne mooy jaam bu rëcc dem wala giléem bu rëcc dem waa ji am giléem gu am valeur rëcc dem kenn gisu ko nga ñëw waxaane ak moom ne kaay jaay ma ko man ma wëri ko islam du nangu loolu manes na ca méngale comme ba tey li ñuy tuddee ab oto bu réer waa ji am na ab oto oto ba réer na sàcc nañ ko léegi yow nga ñëw waxaale ak moom jaay ma oto bi mu jaay la ko yow nga dem nag tante chance ba xam da nga ko gisam doo ko gis islam nanguwut loolu mi ngi noonu loolu it la gis ni islam dafa tere ñuy jaay ay xaj jël xaj di ko jaay islam da koo tere mu am nag xaj yu l'islam ne mënees na koo jëfandikoo ndax yooyu jaay ko dana dagan am déet masalan la ci yonent boo xoon mooy xaj buy garde ay tool ak xaj boo xam ne sàmm bi muy ànd ak moom mu koy gardeel ak juróom ak xaj boo xamee ne nii da nga koy jël mu lay rëbbal ndax ñetti xaj yi nit am na droit di leen jaay wala di leen jënd loolu borom xam-xam yi dañ caa yéex ji la am na ñu ne kay bu paasee bu dee ñetti xaj yooyee moom ma des na koo jaay ma des na koo jënd am na nag ñoo xam ne dañoo sax rek te yaxu xadis bi yonent bi alayhi salaam ne tere na njëgu xaj tere na njëgu xaj ñu koy jël di ko lekk mu ne nag ak lu mu ci mën a doon ki nga xam ne daa rey xajub jaambur moom moom dana dañu xool lu ab xaj waroon a jar mu daal di joxe lu toll noonu waa ja nga xam ne da koo reyal la nga xam ne nii moom mooy ab xajam loolu kon lay wax ci wàllu googu su doonte ni ni dañuy jëlaat bind ba tey mu ne wala yajuuzu bayu lahmi bil xayawaani min jinsihi du dagan ñuy jaay yàpp di ko jaay yi ak jur boo xam ni ñoom ñoo bokk la nga xam ne mooy melokaan wala bay'ataani fi bay'a du dagan ñaari njaay ñu wax ko ci benn njaay wa zalika an yashtariya silatan te mooy nga jënd benn marchandise imma bi xamsatin naqdan nga jënd ko juróom ci teewaay aw ashratin ila ajal wala ci fukki dërëm ba ci dig bu ñu tudd xat lazimatahu bi ahadil samanayni ñu lënkale ko lenn ca ñaari njëg yooyee loolee da ngay gis ne du dagan ci lislaam waaw mbokk fii day wax rek ne waa ji nga xam ne dafa yor aw yàppam yàpp yooyu ba ñuy jël bindu dimanche ba waxoon nañ lan moo cay yu bokk melokaan te mooy lépp luy dox ak ñeenti tànk ñoo bokk melokaan béy xar nag giléem waa ji ñëw tey nga reyoon sa nag moom moo indi aw béyam ne la kaay ma jox la béy bi nga jox ma juróomi culay nag wala fukki culay nag loolu du dagan maadaama ñoo bokk melokaan waxoon nañ it ya bokk melokaan mooy yi naaw ak ya nekk ci géej loolu kon muy wone ne su doon waa ji ay ginaaram lay indi kaay ma jox la fukki ginaar nga jox ma ñaar fukki ci lay yàpp nag wala kaay ma jox la ñaar fukki ci lay yàpp nag nga jox ma fukki ginaar su boobaa dana dagan waa ji ñëwoon indi aw béyam na jaay ko ci jën bi kaay ma jox la saa béy wii te nga jox ma nangam ci jën loolu dana dagan contraire ba dana dagan waaye boroom jën mënul jënd yeneen li jën ci jëndam lépp lu yor ñeenti tànk kenn mënu koo jëndee yàpp leneen naka noonu lépp loo xam ne dafa am ay laaf kenn mënu koo jënd lu am ay laaf ne moom amma bu dee ne catégorie yi melokaan yi bokkul su boobaa mënees na koo jaayante ci seen biir mu ñëw nag ci beneen masala bi nga xam ne mooy lu mel ni loolu la mbokk bi doon laaj léegi mooy li ñuy tudde bay ataan fii bay ah ñaari prix ci njaay mbokk loolu da ngay gis ni moom li mu ci wax fii mooy waa ji jaay marchandise ne masalan képp koo xam ne nii day jënd day cinq cent laa koy jaayee waaye kuy leb mille francs laa koy jaayee loolee ni mu yem nii ci yax bi rek tax na lu bari ci nit ñi dañ naan dafa xaraam waaye boo dellu woon ci samaru daani ji da ngay gis ni day lay wax ne fa in lam yakun ala luzumi jaaza la nga xam ne moom lañ ca tere mooy waa ji ñëw téere bi laa bëggoon nga ne ko téere bi day booy jënd cinq cent la booy leb nag mille francs la waa ji jël téere bi dem ca teqaleewu leen ndax da koy jëndam da koy leb waaye bu dee ne yow yaay jaay sa téere kii ñëw ne dama bëgg a jënd nga jaay ko ko téeméer kii ñëw ne dama bëgg a leb nga lebal ko ko mille francs loolu yi dara nekku ci comme tey nit bu ñëwoon ne damay jënd mën nga koo jaay téeméer mu dem keneen ñëw nga jaay ko ko 1000 francs naka noonu nit kii mën na ñëw di leb nga lebal ko ko 1000 francs keneen ñëw nga lebal ko ko 1500 mooy bu dee leeral nañ ko su boobaa loolu dagan na moo tax mu ni lañ tey araamal mooy duuna tahdiid mooy lu ñu leeralul su ko defee loolu ñu bàyyi ci xel bu baax donte ni nii masala la yi borom xam-xam yi di am ay juyoo tey boo demoon tey bokk na ñaar ñi gën a siiw ci suñ jamono yi passé cheikh Nasiruddin Albani moom yaxu hadis ba lay jàpp boo waxee moom da koo boole ci ñu xaraam waaye ki nga xam ne mooy cheikh Usaymin ca su dee ne ci wàllu fiq moom la ko ci yàlla may mayu ko woon cheikh Nasiruddin Albani comme la nga xam ne wàllu hadis la ci yàlla may Nasiruddin Albani mayu ko cheikh Usaymin waaye cheikh Usaymin boobu nga xam ni moom faqih la moom nee na la ca araam mooy luñ luñ tudd ca leeraluñ ko waaye waa ji daal buñ ko leeralee dara néew ci lii daal kuy jënd nangam la kuy leb nangam la kiy leb xam ne daa leb kiy jënd xam ne daa jënd loolee da ngay gis ne bu leeree dañuy gis ne insha allah dara nekkul ca ca loolu mi ngi noonu xam naa dañuy jël suñu bind bu mujj rek mu ne wala yajuuzu bayu tamri bi rutab du dagan ngay ñëw di jaay tàndarma ju wow di ko jaaya tàndarma bu tooy wala zanib wala zabib du dagan ñu jël raisin bu tooy bi bil inab di ko jënd ci raisin bu wow ba la mutafadilan duñ ko jaayante ëppalente ko wala mislan bi misl duñ ko jaay yeme la ko wala ratbin bi yaabisin kenn du jaay lu tooy ci lu wow min jinsihi te la nga xam ne mooy melokaanu la nga xam ne moom la ñuy jëflante min sa'iri simaar ci mboolem meññent yi wal fawaakihi ak fruit yi wa huwa mimma nuhiya anhu min al muza min al muza muzabana loolu la yonent bi alei salaam doon tere ci li ñuy tuddee al muzabana te mooy jaay lu tooy jënde ko lu wow mi ngi noonu ala kulli xaal kon mbokk foofu li muy wax rek mooy tey ngay gis koo xam ni li mu soxla woon mooy tàndarma bu tooy mu indi tàndarmam bu wow ne la jaay ma bu tooy mu ne loolu du daggan ci lislaam noonu it bépp mbir boo xam ni dañ koy wowal du daggan ñu jëflante ko yonent bi alei salaam dañ koo laaj ne ko waaw ndax mënees naa ki nga xam ni dafa am raisin bu wow am na droit borom tool bii di wit mu ñëw jox ko raisin boobu mu jaay ko bu tooy yonent bi alei salaam ne ko waaw n'est-ce pas que bu tooy bi bu woowee day wàññeeku ñu ne waaw mu ne bu leen def loolu lu waral loolu mooy day difficile to li nga xam ne poids bi nga am ci lu wow li nga méngale ko ak lu tooy lay bu woowee nu muy méngoo looloo tax yu mel noonu yépp islam danaan la jaayal lii nga bëgg a échange xaalis ba nga ñëw jënd ci lii waaye lu tooy kenn du ko uute di ko wecceeg loo xam ne nii dafa doon lu wow bokk julit bind yi ñu bind yépp islam mi ngi ci jublu julit ñi mën a jëriñeente seen biir te kenn du lor sa moroom mu bokk ci loo xam ne ni lu bari ci nit ci tey duñ ko sax bàyyi xel waaye léeg-léeg mbokk moo gën a garaaw njaalo di gën a garaaw naan sangara riba di ci suñu diine wax néew na ci lu ko yàlla wax yàlla nee na ñuy lekk riba bu ñuy yewu bis pénc dañuy cadd cadd comme ku jilla fadd ñuy lekk riba yàlla ak yonentam déclaré nañ leen guerre ñi lekk riba safara lañ jëm dañ fay sax ba faw bokk loolu kon ñu gis ne lu garaaw la lu danger la yonent bi alei salaam nee na nit ki lekk riba ci xam ne lii riba la moo gën a garaaw mu tëdd ak yaayam xam ngeen loolu lu garaaw garaaw la léegi noonu dana ma fàttali suñu benn mbokk usulam Ousmane Loum bi nekk ci unk yi mooy waa DSL yooyu nee na ba benn banque da koo topp kaay leen ñu jox leen kaay leen ñu jox leen xam ngeen banque yi ñu gisee ne yow sa mbir mi nga dox lu ñu proposé ko taux yi ñu proposé ko solal ko loolu mënu ko sawaay gis nga man diine bi ñu gëm dañ ni jël riba moo ànd ak su yaay yam waaju ne ko ah kon tey laay pare ci yow dootuma la waxati dara ala kulli xaal mbokk loolu kon ñun dañuy dund système boo xam ne nii tubaab bi dafa ñëw changer suñu lépp looloo tax ba nit ñi yu bari defatuñ ko sax problème am na yoo xam ne yu mel ni mosuñu ko dégg seen dund mosuñu ko dégg sàngaraat njaaloog sàcc nag dara jarul leen ko ndax loolu xam nañu arab la waaye mbokk it noonu la ñuy bàyyi xel bokk na ci jaamu yàlla yi gën a kawe muy commerce tuyaaba ju rëy la waaye ngallaawaay képp ku ciy dugg war ngaa def loo Omar ibnul Xattaab doon def su ma saan ñëw ci marché bi fekk sëñ caam dana ko laaj yenn laaj bu dee waa ji nekk fay naka-nakal mu caw ko yar ba mu yoroon na ko tëjal sa magasin bi demal ca jàkka ja ñu jàngal la lan mooy règle commerce nga doog a ñëw ubbi doog a jaay lii mbokk la islam jàngale ala kulli xaal lu bari ci nit ñi xamuñu yàlla na yàlla jéggal ñu jéggal ñu jiitu woon jéggal ñi mujj yàlla wërsëgal ñu alal ju dagan ju teey ju raxul lenn lu haram wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain waa ji nga xam ni dafa toog ñaari at yoo xam ne nii julliwu ko ngiree ko ko càgganteem ku mel noonu ñaari possibilité am na ci moom mooy mu xam ni mi ngi woon ci musiba bu rëy rëy rëy mu daal di tuub tuub gu sell ci kanamu boroomam te la nga xamee ni nii moom la nekke woon ci ak kéeféer dogu ci ni bis ki tey dootul faat julli ndax temps bi nga xam ne dem na ba ci ñaari at loolu duñ ko wax ki nga xam ne dafa toogoon un mois julliwul wala ay deux mois julliwul loolu muy benn bu doon tene nag la gën ci moom la nga xam ne muy gën a sellal tuubam noonu mu toogee ñaari at julliwul mu jëlaat yeneen ñaari at yoo xam ni fu mu jullee benn waxtu yéen a fay benn waxtu ba ba ñaari at ya da doog a mat loolu moom mooy la nga xam ne moo la gën ci moom amma bu dee jàng ci portable loolee borom xam-xam yi tombeeg portable dañ ne aadiwul yor njàpp téye portable bi ci boppam aadiwul yor njàpp ndax ay système électronique la boo xam ne mooy feeñ ci place ci kaw écran bi rek bokkul ak alquran bi nga xam ne dañ koo bind loolu daal la ñuy wax ci wàllu googee wallahu subhanahu wa taala alam naam mbokk bi yow bismillah waaw waaw waaw ja koo xam ni dafay jaay ay matériel yoo xam ni danaan la kat mi ngi nii ooma ci benn garanti soo yóbboo bu baaxee yaa xam bu baaxul yaa xam bokk lislaam nangul njaay mu mel noonu islaam lépp lu muy jëflante day doon loo xam ne nii lu leer la waa ji nga xam ne daf laa jaay matériel ca lam la jaay ba nga demee gis ne baaxul am nga droit delloo ko loolee nga xam ne moom lañ jaay te mel noonu jàngoon nañ ko ci li passé ci affaire jaam yi wala dars dimanche bi di ñëw insha allah daan jàng lu mel noonu te moo dina daal ci gàttal nit ki bala ngaa jaay dara da lay leer ne li ngay jaay baax waaye loo xam ne yow mi koy jaay sax xamoo ndax baax nag baaxul amul droit ci jaay ko bala nga ko essayé loo client bi yaa ko war a essayé ba xam baax na wala baaxul mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaw waaw kii daa am benn soxna du julli lu mat trois ans mi ngi xeex ak moom nanguwula julli lan mooy taxawaayu lislaam ci loolu taxawaayu lislaam ci loolu mooy nga fase ko mu dem ngiree mu daje góor bu ko mën a julli loolu waaye nekk ak jigéen trois ans ci néeg ci du julli loolu mbokk musiba la su ko defee daal ala kulli xaal soxna si ngay yor mu ñëw xamul luy julli naxanteel ak moom sa kemtaleel kàttan waaye nag jàpp naa ni naxante ba moom warul mën a passé dem ba trois mois quatre mois maximum ak suñu borom quatre mois la ñu jox ci délai bi ñuy war a mere jigéen ngir yar ko mu ne ñiy mere seeni soxna am nañ droit toog quatre mois donc bu doon tëdd dañuy ko xiyaas ci lu pendant quatre mois yaa ngi naxanteeg moom nanguwul jub ku mel noonu mbokk da nga koy bàyyi mu dem ngiree mu dajeeg beneen góor boo xam ne dana ko mën a julliloo yow it yàlla wërsëgal la jigéen boo xam ne day julli wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam bismillah naam naam dama doon laaj waaw dafa ñëw fekk ñu ngi rukkoo déggagul imam wax sami allahu liman hamida mu rukkoo maadaama yow déggoo imam wax sami allahu liman hamida te gisoo imam siggi rakk boobu te nga bokk amma boo gisee imam bi siggi na même boo waxul sami allahu liman hamida bokkoo ci rakk bu dee daal jàkka ja daa fees déggoo sami allahu liman hamida xamal ne rakka ba ca nga bokk waaye bu dee ne yaa ngi jàkkaarloog imam imam siggi na même ah bu waxagul sami allahu liman hamida rakka bu bokkoo ci xaw ma ndax loolu nga wax wala waaw mu ne mu ne waaw sangu set waaw ndax wa waa ji sangu set moo boole ci saabu ala kulli xaal ku ne xam ne ne saabu bi du des ci yaram bi la nga xam ne moom nga mujj sangoo ci ndox bu dee ndox mu set la ca raxas na sa yaram bi yépp même bu dee saabu da koo jiitu sangu set ba nekk na sangu set bu baax loolu mbokk mi ngi noonu su ko defee waa ji doon sangu set mën na ñëw bomboog saaboom ba pare gannaaw ba la nga xam ne moom lay mujjee mooy mu ndox bu set mu raxas boppam ba ca suuf loolee du tee sangu setam dana baax wallahu subhanahu wa taala aalam naam bismillah waaw dama laajte waaw ndax banque islamique seen système islamique na ñoom loolu la ñuy wax waaw ñoom loolu la ñuy wax donte ne ni kuy jëflanteeg ñoom it na nga dem ba lañ lay proposé nga dem waxtaante ci borom yi xam-xam ndax ça ne veut pas dire que ki daa tudde mbiram ne l'islam la ñu jàpp ne li muy def lépp l'islam la ñi ngi koy njort ci ñoom nag maadaama tuddee ko banque islam waaye mënuma garanti ni maadaama banque l'islam rek lu ñu la proposé l'islam la loolu moom mënuma ko garanti ah ah. voilà da nga ko mbokk bi li mu wax mu ne bari na yu bari ñoom dañ koy tuddee l'islam mais duñ ko mën a appliquer ndax ñoom ñi nekk ci suufu banque centrale il faut ñuy jëfandikoo loi banque centrale donc ça ne veut pas dire que ne banque islamique rek donc tuddee l'islam ñu ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam naam dañ jàpp picc waaw wala kulli xaal loolu moom maadaama forme la ci forme rëbb forme la ci forme rëbb islam may na nit ki dem rëbb di jaay su dee ne jàpp lay picc di ko jaay loolee kenn mënul wax ne li muy def dafa xaram ngi mel ni ki demoon jàpp ay kéwél di jaay wala jàpp ay njombar di jaay kenn mënul wax dafa xaram li ci problème bi rek mooy lu bari ci ñay jënd picc yooyee dañ koy def ak seet di sànni bu jaaree ni jaar ni waaye daal waa ji moom bu dee dem rek jàpp ay picc jaay moom loolee moom kenn mënul wax ne mbir la bu araam ci lislaam mbaa ko kon ñu ngi noonu xam naa dañuy doy loolu bu yàlla dajal waat ni fi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk